aywa miroir régional tey def ñu yóbbu ci diwaanu Kédougou euh, foofe nag ca Kédougou la ñu wax rek mooy lu jëm euh, ci ñàkkum xëy bokk na ci la ñu waxtaanee ci assemblée générale euh, bi ndaw yi Benno Bokk Yaakaar bokk ñu ko doon amal ci diwaanu Saraya ñoom nag ndaw ya joxañ nañ baaraamu tuuma ñenn ci seeni kilifa dañu daal dañ leen seetaan ci seeni jafe-jafe Kédougou Ibrahima Jabaxate pardon lañ fay fekki ñàkkum ndox bi doon na li askan bi di joytu bu baax a baax fii ci département bu Saraya rawatina nag jigéen yi yëngatu ci activité maraîchère yi. leader yi ku nekk mu ngi jàppale boppam ñun fii jigéen yi dañoo sonn amuñu ndox amuñu amuñu clôture bu baax pour suñu maraîchage yi fii nii pour nga pour nga am légume il faut nga dem Kédougou ndugg ñëw toog Saraya xam nga loolu dafa metti te boo xëyee tamit pour dem euh, uti ndox. dangay sonn doo am ndox mètre cube cinq cent mètre cube euh, euh, d'eau boo gisee euh, ñun tey ñu ngi ci ñu ngi ci tool yi ji góor yi kenn du jàppale jigéen yi suñu dem suñu bindee ay demande pour suñu clôture yi maraîchage yi kenn du ñu jàppale te ñun ñooy def pour ñoom ñu am place boobu même conseil pour nekk conseil jigéen yi nekkuñu foofu ñenn ci militant Benno Bokk Yaakaar yëkkat nañ seen kàddu jëmale ko ci ñàkkum financement projet yi nga xam ne jot nañ ko amal fii ci département bu Saraya. pour l'instant moom Macky Sall ñun jeunes Saraya ne sont pas contents de lui moom il nous moom mu ngi ñu gis comme fii bëriwul nit. ou bien fii il devait pas nous respecter alors que lépp lu ñuy reçu kii extérieur si su sol bi presque si région Kédougou lay jóge et alors que on nous on nous respecte même financement bi am la jeunesse de Saraya musul bénéficier on appui boo xamante ne état bi e, mun na jox jeunes yi pour ñu ñu ñu dimbale seen bopp. ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku fii ci département bu Saraya élus locaux yi fas yéene nañu tënk ci ab bataaxal jébbal ko kii di njiitu réew mi. dañuy def benn mémorandum ci mémorandum boobu problème yëpp mu ngi ci mémorandum boobu suñu sanoon président recevoir ñu président may ñu audience ñu togg ak moom ñu posé ko suñu doléance yi ñu jox ko suñu mémorandum boobu vraiment loolu la ñu décidé fii en tout cas li gars wax li militaires yi wax mémorandum bi ñuy bind nii bu ñu gisul président teg ko ci loxoom seen mémorandum ah élection bi di ñëw ñoom daal kenn mu leen tey léegi ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi donc loolu wax boobu dafa am solo du menace du leneen mais loolu mooy dëgg bi loolu mooy dëgg bi en tout cas audience la ñuy ñaan président de la république coordination bu sara pour ñu jox ko kayit yi ñu jox ko mémorandum yi pour que suñu affaires yi suñu suñu jafe yi mën a am safara daje bi ñu amaloon ci Saraya nekkoon na occasion bi nga xam ne militant APR ak benn Bokk Yaakaar toog nañu waxante ay dëgg ci ay jafe-jafe ñu nemmeeku fii ci biir département bu Saraya ay aywa ñu jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Jabaxate laata ñuy wax nag ci problématique de l'emploi nga xam ne li euh, wolof naan euh, inde bi fépp la suuse euh, balaata ñuy dugg ci waxtaan boobu ñu dalal sunu bàjjanu gox tey nag nekkul bàjjanu gox moom tey moom dafa ñëw nekk daal xam nga ki ne fu ko neex lay génn Fatou ni ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Faty di am mbégte di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi Chérif Cheikh Tidiane Diawo namoon nañu ko xam naa ne moom noppalu na bu baax a baax ci congé bi moom bu baax a baax di nuyu euh, téléspectateurs yi. tey xanaa waxu leen dara ndax keroog dama leen seetaan ngeen ne ki ne da leen nuyu nuyu soofantal ngeen di ko kaas ba muy jaaraat seen tur mais tey moom jox na leen seen wàccuwaay moo fekk la fi woon mais Mamadou Fall ak ñoom Chéri dañ ko doon kaas ak ak ak as ba as joxaat ko mu jox leen seen wàccuwaay. dégg nga léegi <laughs> léegi jot ngeen seen wàccuwaay voilà rappelé ko à l'ordre dañ ko fan de ñun ñëpp ñoo fan suñu bàjjenu gox parce que ne dem ñu am mbégte di ànd ak yow ah àllar alxamis bu jot di waxtaanee. Euh, li nga xam ne euh, moom mooy lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mm-hmm. mais laataa ñuy dugg ci biir dafa mel ni nag yaa ngi ci tey njabootu thrombose ba léegi mais du ma leen wax dara ci kanam tuuti daañu ciy waxtaan dañuy euh, tàmbali problématique de l'emploi fal daanaan comme tey yaay suñu daanaadu plateau ñu bi waxtaan bi assemble général la ñu amal waa benn Bokk Yaakaar ke Saraya gone ya nag nee ñu way politique yi ñi leen jiite dañu leen a xaw a daal boddi ci seen ab mbir ba ñoom gis ñu seen bopp daanaka daal jafe-jafe bëri na jafe-jafe xëy nag du kee dugg rek Sénégal la daj kap waaw moom mooy constat général bi boo xoolee loolu la waral sax démb xam naa ni su ma DER Cheikh Tidiane Diaw dina rey ci suuf parce maa leen di représenté <laughs> mais <laughs> mais boo dee xool euh, ci wàllu auto emploi lañ ñu ci la nguur gi gën a misé euh, nga xam ni ñu nit ñi gone yi mën a mën a mënal seen bopp tax ñu daal ay financement ñu ci mel ni euh, kuréel yi DER ak euh, ñoom ñenn ñi ANPEJ ak yooyu yëpp euh, jug ci ngir mën a kon ñu jox gone yi euh, lu ñu mën a jàpp ba mën a euh, am xëy mais boo dee xool faat yi Sénégal tey waral na ko sax looloo jàpp nañ ni ñetti fan yi nga xam te ne manifesté yi metti woon na ko fii ci réew mi dañoo jàpp ne ay gone yu doon wut xëy te amuñu ko bokk nañ ci ñi nga xam te seen ñàkkum xëy tax ba ñu nekk ci anxiété goo xam ni moo waral ñu wàccee seen seen seen ci mbedd mi mais jamonoy emploi ci boppam coow li ci Sénégal dugguleet mais tey la gën a metti euh, tey la gone yi gën a ñàkkum xëy léegi nees dafi pexe ba nga xam te ni ñoom danañ ca mën a jàpp xëy na nag ci la njiitu réew mi ak kuréel yi nga xam te ne lal na ko ci li ñuy sëgg koppar yi ñu génnee mu di ñetti téeméeri milliards mm-hmm. ak juróom fukk xëy na daañ ci am pexe boo xam te ni daal dinañ mën a joyante ba gone yi am fu ñu mën a jàpp mm-hmm. ah xam nga dañuy wax emploi emploi mais tamit euh, am na lu ñu ci war a teg parce que su ne emploi euh, dina doon baax nga teg ci décent hmm. emploi bu décent boo xamee ni hmm. di nga ci mën a am loo xam ni euh, dina mën a faj say besoin parce que affaire yi yëf yi newul ci ñetti fan manifestation yi fi amoon rek la tàmbalee parce que ci période bi nga xamee ni amoon recrudescence mbëkk mi bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, candidat yooyu doon dem euh, l'immigration amoon na si ñoo xam ne dañoo am liggéey. waaw mais liggéey boobu leen moo kaasul seen ay soxla mais liggéey boobu mënul mënul dara si ñoom. taxul ñuy dem. Mm-hmm. Euh, ñëw proposer ni lii liggéey la liggéey lu boo xamee ni yow soo fa demee la nga fay am weer bu dee cinquante mille la soixante mille la. Mm-hmm. la la la la la mënal. soo si jëndee saaku ceeb ak kii yeneen sa yeneen charges yi mënoo koo assurer mënoo ci fay loyer mënoo ci mënoo ci moo tax liggéey bi dafa war a doon liggéey bu décent euh, mais tamit euh, gis naa tamit euh, initiative bi ñu tudd ci Benno Bokk Yaakaar yooyu tamit je pense que dafay andi day xaw a jaxase xel yi parce que day tax ba ñu bari dañuy suñu gisee nit ñi ñoo koy def yaakaar ni de pour ñoom la pour ñoom la c'est politiser c'est fait pour leur militant te je pense que mm-hmm. yëf yi warul demee noonu mm-hmm. loo xamee ni askan wi ko bokk te warul am par par loo. je pense que bu ñu wax problème mu emploi fii ci Sénégal euh, ne hmm. li am solo mooy comme koppari koppari Sénégal ndax xaalis xaalisu contribuable je que fora yi gars yi di organiser parce que gis nañ ñu ne dañuy organiser ay fora. Hmm. te loolu du moom mooy régler le problème parce que problème bi c'est très sérieux surtout zone boobu nga xamante ne opportunité yi bari nañ fa mais gone yi boo xoolee voilà une zone touristique voilà chute les chutes de Dindéféli y a tellement de choses magnifiques à moo tax dafa laaj kii vraiment vision bu mag ci wàllu liggéey bu ko defee kon fu doomu Sénégal nekk foo mën a nekk ci réew mi bu fekkante ni li nga xamante ne génn nañ ko ciy koppar mm. muy 65000 emplois yi nit ñi gis seen bopp parce que mm. tamit loolu moom mooy solution bañ ko politiser que buñ ko politiser après ay coow lay indi et puis mm-hmm. transparence mais mm-hmm. je pense que fi ñu a jëm mooy bu fekkante dañoo gën a koppar ci wàllu financement yeneen te dañu publier liste bi nga xamante ni mooy bénéficiaires yi ak li mm-hmm. leen jox su ko defee ñëpp mën nañ teg seen ba jamonoy euh, numérique la nekk ku dem ci site ba wala nangam gis ne kii ak laa ko parce que toog rek di joxe ay chiffres aussi c'est trop facile mm. est-ce que sur le terrain c'est palpable gis nañ résultat bi parce que ñaata milliards nga neen la jox 3 66 milliards waaw 66 milliards ci mm. financement est-ce que feeñ na parce que 66 000 bénéficiaires 66 milliards yu bëri na presque jege na jege milliards yi liggéey déjà ci affaire affaire yu liggéey boobu donc bu fekkante ni dem nañ 3 ans après problème mu emploi waat je pense que il faut que ñu xool fan la mbir ma bañee loolu nag li koy waral mooy su muy lu concret et li ko gën euh, firndeel aussi mooy wàllu éducation bi aussi il faut ñu ñëwaat ci wàllu formation aussi parce que gone itam bu fekkante ni dem ñu tàgg leen ci ñi nga xamante ni formation professionnelle lan yeeyoo wala wàllu artisanat ñu jàppale leen ñoom ci li nga xamante ni mooy yooyee financement mm-hmm. muy lu am lu am solo Fatou Kiné euh, Kédougou euh, lañu waxtaanee sànq ñu koy wax naan euh, bërëb la muy gox boobu dig digal boobu jóge Tamba dem gu opportunité yi fa nekk bëri na mais malheureusement dañu gis ni population duñ ci duñ ci bénéficier yu ni mu waree or baa ngi fa tourisme bi sax dafa war a dox. Mm-hmm. mel ni Kédougou parce que image yi ñuy gis ci chute de dindi felo yaakaar naa bëriwul fu ñu koy gis. bariwul fi ñu koy gis non seulement li nga wax jafe-jafe xëy la. emploi ngir ndaw ña waaye tamit jafe-jafe ba ci gën a am tey mooy fantasiro gi nga xamante ne dafay am ndax léeg-léeg di nga fa dégg ay xeexoo mhm. xeexoo yoo xamante ni du mujjee jàmm mhm. te loolu yëpp lan moo ko indi population bu frustré lañu mhm. parce que dañu gis ne ñoom dañu dëkk ca dëkk ba euh, dañu dem dañu dëkk ca dëkk ba au lieu que ñoom ñu bénéficié wu li nga xamante ni moom moo fay sokkeekoo di koom dañuy gis ne ñeneen ñi nga xamante ne ñoo leen wër ñoom ñooy ñëw di bénéficié wu li nga xamante ni ñoom ñoo ko moomal seen bopp yeneen réew mu ngi noonu yeneen réew yi mooy réew yi nga xamante ni tey dafa nekk xam nga bu li ñu naan région Carrefour lañu. Mhm. ndax dëkk yi nga xamante ni moo leen wër. donc yooyu day ay jafe-jafe yoo xamante ni dañu ci war a taxaw ndax dafa yàgg ndax Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni. Mhm. Euh, lu soxal wàllum xëyum ndaw ñi daf fi nekk loo xamante ni problème bu yàgg la ñu war ci taxaw. Mhm. muy problème euh, boo xam ne waras na koo waxtaanee sànq nag ñu ngi euh, wax bi ñuy tàmbali naan foo dem rek làmb da nga yaakaar ne foofaa gën a mitti. di ko tàmbali ci Ndakaaru daj na daal daj na kap quarante cinq départements yi sax pour être plus précis foo dem euh, jafe-jafe xëy moo fa am nguur gi nag def na ay diggé n'est-ce pas ak président Macky Sall discours am bu mujj bi mooy soixante cinq mille employés lu wax depuis le mars déjà mooy bi fi problème yi amee c'était promis gis nañ mu lay teela ko ci veille euh, célébration 4 avril mhm. police aussi gis nañu ñu ne dañuy mhm. recruter 3000 agents gone yi tamit c'est mhm. bien voilà ñu dem ci biir recrutement am na ay ay métiers waaye yu ñu la ci gis yi nga xam ne du rek ay maintenir bari na ci gaaw gis nañ ci yeneen xeetu ki yoo xamante ne ay mécanicien automobile ak mhm. ay yenn chauffeur yooyu yëpp ay maçon donc lu am solo tamit je pense pour gën loolu mën na dooleel formation professionnelle bi nga xam ni euh, xëy na président ci la jëm ci euh, conseil présidentiel par rapport à ça ndax xale yi foog ñu tàggat leen ba ñu mën a am métier ngir ñu mën leen jox métier euh, génn président de la république boobu tam moo tax day réagir tijji ouverture dossier yi démb lañ tàmbali ñi nga xam te ni mën nañu déposer ngir mën am financement. Hmm. Euh, critères yi tàmbaliwaat na waaw tàmbali na dem. na leer rek maanaam transparence transparence bañ bañ ko mbiram politique wala kii ci camp bii la bokk ak wala fii ak. chargé de communication. na na université du métier beeg yooyu mi ngi doon dox wala. université du métier. Hmm. xëy na looloo waral ñu war a jëm nag ci xalaat. Hmm. ci wàllu tàggat xale yi. parce que sànq Chérif mi ngi naan formation professionnelle formation professionnelle ay maçon yooyu. tey jii xëy na foofu la ñu war a jëm et puis ñu boo xoolee maison des jeunes Chérif euh, ñu ngi ci doon gëstu xëy na dafa noppeegul mooy bi nga xam te ne lancé nañu ko à Pikine également dafay jël li nga xam te ni mooy yooyu ngay wax ay euh, kii des métiers tàggat xale yi guichet unique yi mm-hmm. après nag bu boobaa ñu xool bu ñu bu ñu xayma. ce que ça va donner voilà. en tout cas euh, ñu ngi am yaakaar ñëpp euh, ci euh, wàllum xëy moomu. ñu indi ci saafara mais parce que am na yoo xamante ne. ci affaire soo bi parce que am na ku ñu doon wax ak borom. benn kilifa mooy ci mais ci boo demee ci région yi. ay mm. centre yoo xamante ne dañ fay jàngale métier. Mm. mais gone yi boo leen doon jël wàllu poterie par exemple exemple rek la fi joon joxe li mu wane mooy. benn xale boo xam ne xaaral ñoo nañ ci mais biñ ko bëgg a jël papaam nekkoon bi tamit dégguñu ne poterie la def dafa woote di kaas ne poterie alors que. jàpp na ni foofu la métier d'avenir métier bu bu am ay mais surtout quand surtout par rapport. Mm-hmm. ñoo xamee ni c'est des di liggéey di am salaire boo xamee ni c'est largement largement en deçà de seen qualification seen transport rek bu méttul moo ëpp salaire bi loolu mooy waral ñu bëri dañuy dem ba dañuy découragé donc ay euh, paramètres la yoo xam ne il faut ñu leen tenir en compte merci soo xoolee ba euh, immigration bi loolu loolu loolu moo koy faral di yokk parce que nit ñi dañuy toog di liggéey mais fa ñu liggéey duñu gis seen bopp looloo tax euh, hmm. ñuy bouger merci beaucoup suñu temps ndax ñun ñëpp def euh, daf ñu soxal yitteel ñu bu baax a baax bu fekkee yeneen a ngi soog a dab 7h18. mooy soog a jot ci kanam sax Cheikh Diop fi ko waxtaanee ci kanam ndax Cheikh Diop moom mooy invité bi secrétaire général CNTS FC ak lu jëm ci wàllum euh, syndicat yi aywa ñu dem ci wér gu yaram ànd ci ak suñu bàjjenu gox Fatou Kiné. Fatou Kiné Deme euh, yegg si na euh, ba nuyoo ba toog sunu bàjjenu gox euh, tey nag ngay waxtaanee ci leneen muy lu jëm ci jàngooro yi nga xam ne mën na jàpp sidit te itam bu ñu ci teelut mën na indi thrombose.